biwo ken kontan batale bari inatal pour kanna gullo ko jibe ito kontantale makura mm -hmm. bari ala yalonte man kontande makura kana nyina ko inteninte belbe tuba dudula kilingoto ngoto nyalti kay ngokko di bakata ngo kina jang pour yenna ya dula dada ni tata na dula to makura ala yalon njuso malla ama hani futa dula to dula din din din anu birite loro kuma se woni bitema ama hani me no no ama me to nyalom ke mhm. bara fonyo mune muy la kulloti ndela kullu balu waldi baluwo wey fo baluwo ko looro fanaŋ kele i ka looro fanaŋ kele ñiŋ kuŋ ne suuniyaata taa www baluwo com aniŋ baluwo i si i la bulloraŋ joraŋol bee saŋ aniŋ i la kudoo la a se a tara i maŋ bataa joraŋol meŋ buko simentol keñoo babarol neel periwol woniŋa ñoŋ jamaal taa baluwo com yeñiŋ joraŋol bee saŋ i la dinkira baato to a duŋ ite bataa la jee aniŋ baluwo i faŋo le marata i la kudoo la assalamu aleykum mbaɗigol gaali konton kaali bisimilla e kotake mowoɓe kerfade djibe kan don mbiɗo ngakkibar dima baare sotale <laughs> ngaalom ah, mbettere ala kafale pour mole understand because naliyen komaje dron albaje lale ko mimbi je walam sajiwalti andun eh, sango san kana janne pour que kibar dima nati ali anin eh, baluwo ali alon ne every year nin saliba eh, sita dron baluwo ko sajiwon nati ali ne alon ko albuka soto dulato alka soto price o min alta soto la dulato gambe banko kanjang na manke am di wala na fana nyinan nati ali bari nga jele ko last year sajiwol alon ko nga wolle tarajang e a siyatale bari fanan price wol da soniyatale anni wartale fanan nga nga nga lonne ko um, lasiya 10000 dalasi um, isi isi isi, isi saji sotono 12000 dalasi isi saji sotono anno nyimmu saji balleti uh, eh, milia lonko am um, alke sotono uh, eh, anin balu wala am um, abuko jang mbitale kote ke nga jibe ñinan sango bari mul bele be karola e eh, baluwo ye mune uh, ye mune ye mune natinan baluwo fela sajel futata nanne fele ha sajel futata nanne andun saji ballem be futalale nga ngatande molla andun nga sanya fanan mba fulale albasan na nyame tare be tubaburu mote ne wala kotake bayrim baluwa kam ko ila abo ñing isi sandiro kenoje watara iman kodo fanki uh, gambia banko kanjang uh, woto uh, ngadun kono to ngajibe jibe ye mustafa ben no wala anen camera uh, nimbaye ben ngajibe um, uh, mune mune bijambi Eh, nga dung aboko nga jibe min bijang ah, bay do nabe diam la sura kan bari ay wala bay ñëwaat nañ di di siyaa waaye nañ nañ dugg si biir ñu xool xaar yi xam naa every dañ dee ñëw fii ñëpp ñëpp ñëpp xamee nañ la léegi as far as ah, Baluwo is concerned ak xar yu yomba ah, yoo xam ne yooyu ngeen di am jaay last year dafa mel ni ñëwoon nañ fii waaye this year tamit dafa mel ni ñëwaat nañ mun naat mun ngaa taxawee nii rek si kanam tuuti nañ duga pour ñu wane xar yëpp ñaata domandin be dundale pour que sajiyolu be tandi mo la bari janni wo ning babe diamu la pour aliya suute fana moolu kono because nal naata abu ko donc albina atele ya sajiyol ñil be baatale bulu albasan na bayle bulu wala balu wala sajiyolti alba sanda min bulu uh, eh, lebe lorin tenting tin eh, uh, lamin fanam ɓe kaccala lamin jete dol ka mandi. um, uh, eh, lamin baluwol la ñato ɗumandi nate fanam be kaccala le bari uh, saji soneyare o baluwolem alilam moy la kuule pour nga faale e saji kendol aning saji warmal nga mil sotole andung a price wala da soneya uh, way bay mangla dala waaw waaw jere jof way naa trop si exi ak si ñëw interview bi waaw because every year dañ ko dee def so rafet na trop ak customer ah, baluwo yëpp pour ne last year jox nañ leen xar yi baax waaye dafa mel ni this year la xar yi gën a baax waaw customer yi they were very happy very comfortable waaw ak nuñ doon jënde with all prices ak quality chips quality ram yu leen dee jox so this time around kat yi foog naa suñ gisee vidéo bi dañoo gën a happy pour war a ñëwaat si baluwo bi xam ne baluwo bi seen raam si they are one of the best out of all. Uh, wax nga dëgg loolu moom loolu loolu kenn wérante ko because last year bu ñu waxee price yi am na ñoo xam ne dafa mel ni dañoo ne doo munta nekka buñ gisee xar yi waaye ñoo neñ ñu gisal ko seen boppa ñu jënd waaye this year lan nga ñu mun a wax si xar waa xar yi this moom affaire yi mu ngi xala change tuuti rek because change bi mooy ne waaw bagage yi stuff si yoppa increase time bi loolu xam nañ ko si worldwide la waaw so spécially xar yi understand nga mhm. waaw waaye tami ah, ba CFA bi tam currency bi comme exchange rate bi moom ñu xala sonal tuuti si affaire yi understand nga mhm. waaw waaye Baluwo moom ñu ngi fii pour dimbale ñëpp everybody koo xamante ni yelloo nga dimbal understand nga mhm. waaw soo xari moom macha allah ñu ngi fi ba pare tam di same thing price yi last year bi ak price yi this year bi dafa xala am distance tuuti waaye lu ndaw la rek mhm. waaw because Baluwo moom ñu ngi fi stand pour xam nga everybody koo xamante ni uh, you are highly welcome dafa mel ni pour pour uh, price yi am na distance tuuti ak last year waaye dafa mel nii ba léegi price yi nekkuñ benn ñeneen ñi nuñ ko nekk di jaay high price dafa mel ni still now Baluwo moo nekk si suuf. Baluwo moo nekk si suuf Baluwo suñ xar yi lu ñoo jaayee ak yeneen other vendors yi nu ñoo jaayee dafa over different. waaw be pare quality bi raam si soo leen capee nga gis raam si yeneen si dafa over different so still now ñun business bi ñu ngi ko def pour everybody so moo tax ne duñ mun a jël high price def ko comme vendors si ñu dee jaayee seen xar yi no non non duñ ko dee def still now price bi distance bi lu ndaw moo fa aat nii rek waaw waaye soo ñëwee rek soo gisee rek soo gisee vidéo bi rek yow soo ñëwee da ngaa xam ne ne luñ laay wax dëgg la compare it to other prices waaw nañ nañ dugg si biir si kanam tuuti pour ñu xool xar yi benn benn ak price yi euh, ñaata ngeen ko ne di jaayee loolu moom gëm naa ko soo ko waxee because am um, last year ñëwoon nañ fii nii gis nañ xar yoo xam ne euh, yéen a ngi ko doon jaayee ay 12000 te xar yu rëy la euh, xar yooyu loolu xar yooyu lañ nekkoon di ñeneen yi yooyu lañ nekkoon di jaay ay 45000 ay 35000 soo waaye yéen a ko doon jaay ay ay ay 12000 soo dafa mel ni um, price yi du dee nekk benn waaye this year um, jaay bi naka la mel ñoo xam ne dañ bëgg a jënd si Baluwo um, um, lan lan la war a def. waaw Baluwo bi start nañ di jënda before this commune interview recent interview right now bu ñu nekk di wax nii commencé nañ si jënda i last ten days back. waaw because dañu upload on beneen other video after ñu seen ko Lamin Lamin Baluwo so customer yi they are still coming time bii nii fu ma taxaw nii sax customer Baluwo yi ñu ngi overcall waxuma la suñ gisee prices yi ak ñu upload video bi ñu gisaat ko which mean ne dañoo over rush abu ko ba pare Baluwo customers tamit baa leen buga a wax leena comme di moo nga ñëw teel di moo ngay am xar yi because affaire yi tam dañ dee mun a dem di jëndiwaat di ñëwaat waaye su affaire yi approché rek demande bi nu mu xaayee rek bagage yi nu ko dee amee fale daf dee gën a seer so da ngaa gis ne boobu tamit su ñëwee pour nga am di same price boo ñëwoon earlier ak lately du nekk benn waaw comme customer baluwo yi ñoom tam ñu mun a understand loolu si business bi waaw di earlier di bes ah, ba waaye dafa mel nii ñu nekk out léegi jarut pour ñuy yónnee xaalis sa ñu ne sa xaalis bi sàcc nañ ko wala def nañ ko la ne dafa mel ni léegi ñoom mun nañ jënd trou balwo ab bi rek ñoom ñu ñëw jël seen xaalis. waaw loolu mooy lu gën loolu mooy lu gën ba pare they are well satisfied because balwo ab bi yëpp mu ngi fa soo cliquer da ngaa gis yóbbu aw mala la soo gisee vidéo bi na te soo yónnee immediately nga bàyyi rek yow saxaar xar mu ngi fii mu ngi taxaw. on saga be pare so ñewé ya, dañ la dé won ay 3 4 har si category bo jënda si rage bo jënda nga tanna si out of those three the one the best one after nga yobu bo be pare hari dia ah, well check, hari yop lañ check du veterinary du everything hari yop lañ check confirm len so lolu mom santa yalla da en da ngeen check lolu yep ay dañ ngeen check wa we have veterinary doctors mo xamanteni ñu ngi fi they inspect the ship before hari di dugasi waaw because dafa am hari yoo xamante ne tam day jógee certain places maybe ñu ñu they need medical care understand nga so dañ they ñëw fini, nii ñu inspect leen set everything plus ñu si suñ boppa because ñu don't work with those project so we know a lot so ñun tam dañ dee teg suñ own inspection balaa ñuy dugal xar yi si biir dëkk bi fii. loolu important na kam tele ko ila saajol ila euh, ila veterinary doctor sotole mi alon ko walla kanyi saajol jibe pour ila jata kende ya fon so ye fengo fen sanjang akam tele ko euh, fen le mi alon ko ay jata kende ya sotole bari nga dung because euh, this year mbe saaji sifal jakanjang Maru nga ngaji jibe folo uh, price ol be kala nyaame nim be dunna kono tole uh, price ol fo duga ak bay si bir ñu hol uh, ah, bay nañ jike fi because uh, gisna fini like um, waaw har har bi ni bi nga bi nga bi nga tiye ni bi bini mu ngi ni legi dañu start to the high price so suñ joge ko ci high price dañu ñew so di low level bi low level bi understand nga as you seen bini mu ngi ni fogna camera bi Mm. caméra bi mu ko waaw mu ngi a bi nii ñu ngi ko jaayee fii 24 which is very reasonable price 24000 is very reasonable because eh, I gis naa ñeneen ñi this year about this 40000 this year because of ñu ne am na ñeneen ñi soo demee bi si other vendors si dañ a jaayee 30 taw understand nga or 33000 ñu ñu have all discount dañ la ko mun a defal 24000 waaw so so ñu dem ñu dem si beneen bi because gis naa doo gis ni yi ñooy biga wan yi am naa ne am na ñu nekk si diaspora bi ñoom tam duñ dee mun a rendi xar bu ndaw soo dañ dee bugg a rendi ay xar yu ponkal waaw yooyu tamit bi moom tuuti mu emal nag bookee bi moom tuuti mu emal nag waaw bi nag soo demee si app bi understand nga price am bi foog naa ne nekkul fa waaye true soo communiqué ak Lamine Baluwo rek soo leen déggooy rek soo buggee façon yi waaw mun nañ la koo jaay tamit ne very reasonable price because bii soo demee fale gars yi ñu ngi koo jaayee eighty seventy five waaye ñun time bii nii soo ñu joxe ay forty five dañ laa mun a jaay façon yi nii waaw it's very reasonable price definitely bii moom is because bii dafa rëy dafa mel ni um, gisanguma yii nii si biir daral bi yëpp um, as uh, si si rëy because bi bi mom dafa sp over oh, this four ñom ñom dañ so ñu check yeneen um fana yi tamit di is the is the is the same bi mom mo ëppa dole. noo mo delu ci gannaaw <laughs> yeah so mhm. ñu ngi ni itamit as you are seeing it in the camera ñom tam si extra large la wa ñu ngi ni ñom tamit ñu gis nga len the same price as yu ma len jëk wa wax fale ay 24 23000 yop mo ngi waaw xar yi baax macha allah boo xamante ni soo demee other side of the market ñu ngi ko deliver eh? 33 000 34 000. waaye di si seen xar yi dafa rëy. ah xar yi baax nañ de yooyu pour pour pour satisfy baluwoo clifin bi. Mhm. customers yi loolu moo tax ñu egg si xar yi baax because some people dañoo ñëw ñu ne bëgguñ xar bu ndaw so moo tax this time around dañ dee egg si xar yi baax pour ñu mun leen a afford in a very good price after nga am xar bu baax macha allah tamit. loolu moo tax dama dee laajte ndax baluwoo def day am profit because dama gis ne da ngeen di am ay veterinary doctors da ngeen di am xar yu rëy waaye da ngeen di toppatoo gaay tamit because soo xoolee xar yi sax dafa set. thank you very much thank you very much loolu pour pour pour pour pour pour pour baluwoo bi la yëpp baluwoo mu am loolu mm-hmm. am nañ special people yu dee sanga xar mm-hmm. comme like lu ma la wax veterinary doctor ñu dee ñëw inspect xar yi whether there is any disease or not waaw from there also xari dañ dee am comfortable place dañ dee am good food comme soo ñëwee nga jënd rek nga xamante ni yow da ngaa kontaan doo am benn two mind si affaire yi mais immediately nga àgga si baluwoo lifin bi naka la ah, place bi fuñ fuñ fuñ fuñ fuñ looj suñ xar yi soo àggee foofu kenn du la dee wax ne dëgg la waaw da ngaa àgga nga xam ne ne definitely these people are doing the best baluwo naatale ani sa mbe sadio le jibe kan um, dami alonko Ah, mbaluwoɓe abukole uh, ah, sain sain tenten ñil be bela sadio le kono ali ajele uh, e konolɓe farende teb uh, andum fanan ye jata ya jata kende a soto itol dammale abuko di enta abuko mi alon ko ila veterinary doctor sotole ke la sadiol cek bari fanan ila sadiol fanan nata senea so am um, yi nak asu you are seeing it ñu ngi ni benen category la mhm. waaw yi ñu ngi am fi 18 19 waa 18 19 yoo xamante ni soo demee bu nekk ak price am. foog naa customers yi war nañoo si app bi. so as you are seeing this ñii yëpp gis nga plain white xar lañ xar yu rafet macha allah healthy. waaye yii nii soo demee si other vendors yi ñu ngi koo jaayee ay 24 25 waaye ñun time bi soo amee 18 19 laa mun a jox façon yii nii. waaw ah, price. very affordable definitely dem leen ngeen download um, app bi léegi um dafa mel uh, ok bii ak bii di same category, la Wow, the same Wow, the local. ok so so so so yii tamit dafa the family. Wow, interesting yi um, dafa mel ni yii anga baluwoo de the thing is um boo gis da ngaa foo ne bii moo a nice bale <laughs> so that is that is definitely very good so yii nak. waaw loolu am na loo wax nii loolu moo am sax baluwoo ñoo mel noonu dañ dee tànn seen xar yi suñ demee si àll bi last time bi maa ngi jógee Mali I was in Mali in two weeks back bu ñu demee foofu noonu dañ de mun a because Gambian bi tamit dañ dee bugg a xari xari rafet macha allah ku ko yóbba si kër bi xale yi kontaan maire yi kontaan so moo tax suñ demee suñ xar yi nekkul ne xar buñ gis rek ñu jënda dañ dee cuus suñ xar yi xar yi rafet macha allah yoo xamante ni as you are seeing it in the video soo gisee xar yi da ngaa xam ne ne foo munta nekk si àdduna bi da ngaa xam ne ne definitely li moom they are good rams and then very healthy rams okay through looking by looking at them so moo tax ñu ngi si xar yi rafet moo tax doo dee mun a xamee xar boo ñëw rek boo laal rek da dee wax ne hey macha allah boo laal rek da dee macha allah so su daf dee choosing yi understand nga because after end of daf dee mujjee happy bu mu rek daf dee wax ne ah bii moom baax na yëpp baax allah waaw soo amee bagage bu la dee mel because customer yi um, da nga xool bi nga ne bi moo gën a baax nga xool beneen bi nga foog ne boobu moo gën a baax because man su ma ñëwee fii nii euh, loolu laa njëkk a gis boo boo xool rek da ngaa foog euh, beneen bi moo gën a boo gën a waaye dafa mel ni euh, tamit. Ehm, eh, ñoo xam ne ñu ngi Gambia fii even suñu amut app sax ñoom mun nañ jënd right waaw waaw waaw waaw am na ñoo xamante ne ñu ngi Gambia eh, soo du amuñ abbi bi waaye dañ dee follow Baluwo bi understand ga so suñ cliquer suñ gisee rek after dañ dee ñëw trou trou Baluwo bi ñu ne dañ dee laajte dañ dee laajte suñ location bi fu mu nekk soo gars yi suñ leen amee suñ suñ leen joxee suñ right location bi suñ ñëwee rek dañ dee wax ne ah ñu Baluwo Rams dañ bugg a gis soo suñ egsee rek dañ leen dee mun a jox style like luñ dee jaayee diaspora bi in a very affordable interesting so um mun nañ dem si another category ñu xool um hani sa en drong mbe balu wala sadio mi alon ko wolle be abu ko jang al nyaabe wolle la tenti mbabe tandi la lale um ye sadio mi alon ko e wolle soro jang um, mbe uh, dunna be dunna la dolto jang um natara ite ba jibe kan uh, ite price o min soro a uh, askeno sambimbe futala je dole fana e price ol mil soto aske noon tambita jeelale already bari so min faale ɗon wolem ñinti ko ga saji ñontagol le tara jang mi yalon koye tareyata bari fanan uh, eh, akam tale ko um, e konol fatale uh, kende ke um, dafa mel ni uh, baay uh, bi tamit uh, beneen catégorie la boo xam ne gis nañ uh, xar yoo xam ne ñu ngi suur gis nañ ay ngooñ yoo xam ne isil nañ ko xari xari fii so waaye mun nga mun nañ taxawee nii right if it's okay uh, pour ñu uh, pour nga mun a wax pour nga mun a wax uh, nga wañu nga wañu seer bii tamit beneen catégorie la o de beneen catégorie la so like this category eh, ñu ngi ko joxee time bi 15000 uh, 16000 which is very waaw pour nga gis raamam si other customers si sax is ni tamit waaw mooy loolu understand nga so yéen ñoo xam ngeen fu ma waxee waaye fii nii ñu ngi fi amee ay 15 16000 ni balu moog balu customer ñu ngi roos pour ñëw pour jënd xar yi waaw definitely ba pare ku jënd rek da nga dee kontaan compare it to other prices. instead of nga jënda 15 foog naa soo nga jënda nga war a dem jëndee boobu 21 22 is better nga jënda 15 16 so maa ngi urge all customers pour ñu gaaw ñu ñëw ñu check si ñu jël si Balwo Ram si because time bi dafa mel ni ay xaw ma 9 days moo war a des si affaire yi so customer yi nañ dem nañ dem ñu jënda ram si ñu mun a am quality ram si ñoo seen kër now interesting because um uh, xam naa within even su fekkoon ne three days la sax nit ñi nañ ñëw uh, because ñu bari uh, woo lañ nekkoon di xaar pour seen xar yi ñu génn ñu xam Barrow lan lañ isi last year loolu moo xapp noonu ñu ñëw jënd xar yëpp ñu jee waaye this year tamit xam naa ne the same thing mooy mooy mooy xappun fii nii because gis nañ xar yoo xam ne xar yu suur lañ waaye price yi dafa mel nii am um, nekkut nekkut benn um, lan ngay wax am um, nit yi because xam naa interview bi su génnee niti yi nañ njëkkalante pour ñëw fi puri <laughs> pour jënd xar pour customer ci ma ngi ooj everybody hari ini pour mu gaay ñu wara ñëw because time bi ni esi nañ trip bi it was the first trip bobu jeexoon na légui bi mo nekk second trip bi as you are seen it in the video légui ñu ngi wara am ta trip bi bo den da nga gis ne second trip bi no le mëna a good price yi waaw du ta trip bi ta trip bi dafa mëna high tuti because bobu mu ngi close to di tabaski understand nga waaw so ma ngi all customers naka lañ pare ñu ñëw check si Baluwo ñu ngi locate suñ location mu ngi abu ko oh, Kanilai Family Farm si main daral bi waaw suma nomba bi foog naa ga yëpp am nañ ko 730 48 58 waaw 730 48 58 730 48 58 soo ñëwee abu ko si Kanilai Family Farm bi si main daral bi first gate second gate su fekkee ne yaa ngi jógee ko Serekunda Tabokoto first gate second gate dugal foofu su fekkee yaa ngi jógee koo Lamen sa lef ah su fekkee yaa ngi jógee koo Lamène sa lef Fosse Gate dugal foofu su fekkee yaa ngi jógee koo Tabokoto soo rombee vétérinaire bi abu ko si daral bi Fosse Gate second gate nga dugal foofu da nga am suñ direct suñ location bi direct so maa ngi oo all customers naka lañ gaawee ñëw jël si xar yi xar moom baax nañ trop macha allah ba pare we are giving them in a very reasonable prices. thank you so much. ok thank you so much bro jërëjëf waay naa si yow maa ok maa ngi nuyu customers di leen welcome di leen ne Lasia kontaan nañ waaw kontaan nañ trop because Baluwo dañ jënda up to the last day Lasia still customers ñu ngi call ñu ngi wax Baluwo Rams Baluwo Rams waaw am na yeneen Balua Rams yu ñëw sax afta a suñu Rams yi jeex nañ that was next study day of Tabaski waaw so afta dañ mujjee jënda si biir waaye dañ jënda very bad price afta lañ jëndee loo xamante ni ñu ngi ko overrechu so ñoo amante ni Balua customer lañ ñoo amante ni dañ ñëw ñuuli Balua customers nañ clip app bi ñu jënda Balua Rams ñu ñëw jël si ko nu mu gaawee waaw ndomba bi mu ngi fa 730 4858 730 4858. am na fa dafa mel ni teel a ñëw bi dafa baax. waaw teel a ñëw bi mooy avantage bi comme ni la wax rek la di moo demande bi mu ngi high di moo lifin bi naka la prices are high waaye di moo demande bi tamit gaaw na teel soo leen nga mun a am in a very comfortable prices so bu waagee moo tax maa ngi urge all customers nañ tra ñu ñëw. ñu ñëw teel ñu jënd baluwo rams ñu am ba uh, in a very comfortable price thank you so much yeah thank you so much bro thank you so much jërëjëf faye eh. so ala barka bake kabrin nim bayi diamuda sayin nibi belorin eh, ate mo jamal ya sutele lamin jayte bari mo jamal ka kumandi eh, lamin balu walla bari mo be alon balu do ko kolto la siya na diamuda le kabrin nata jang ni sadio la kola bari na diamuda fanam balu be do ko mi along ko be wala ke kang gambia banko kan jang ay ku jamal bi je mi alon ko afatan fansinyele la siya kabrin nata nun jang kaboyla abolto ane nafalu mi yalon ko eh, walleɓe je pour ka eh, baluwo yus gambia jang anin gambe bantala eh, lamin nge welcome kote ke on kabring la siya na jan ni kajata disiya fana mutanande kote e abaraka baake buba an fana nge jo allah doku ñima alɓe min ke kam baluwo e okay ideally baluwo atemu typical maningani mule komu mbe yalo nyamin ya understand ok so baluwo startaka operate gambia coming last year ngafanya kabin 2017 ye nga start ning top up lela mi yalon ko ngake num manual ye fo say alhamdulillah abe automotive tale misafono danaka wato nka misafono nka le transaction nka min soto pade but saying every day we generate more than 8000 transactions nka min soto no wo alhamdulillah so after fana baluwo nka sabi solmi fana ke wallo mu komin ko kaspa wato kopti diaspora min be je se kaspa wasanno la family mo le jang aya tare monta rang na be ka kaspa wasanje ni dun ta baluwo la apoto ya download google play store ise kaspa no la molie atare la molbe sirin so no within in real time dal i can say within one minute ila molbe kaspa wato kuno nyin so la ya dundi amanda wo fana to ise credit ko sanno la family molie ise internet credit ko fana sanga nyon nyin laynol beto kabrin gamse sel komiyom afrisel kiwsel e saabe sannoje ni wobotaje fana baluwo fana comme ɓe yalon ñamin ka domorol fana wafile commin nañin domor sopol to yawna sane diaspora et cetera noje commin uh, isa e domo dunno website o jinto na apo yanya download isa e domo sanno e la family mole in real time eta ya soto uh, ga kel dal pour ka sone yandi because ita satara tamadula ila moliye ko koy emergency mano bantale be kodo kila fo wo sokona ita rankote kay kodo nyinta ay na kede na dum dabalu wala website woro ya understand na se mano sanala moliya la moyta na bitiko to ayata da tarya nyama bata kutije so likewise ka construction fana kele nyin kata nyin cimentol ni nyin bung jorangol fana tin ka wol fana kele so mbije kabin 2021 nata je komin ko okay banna fana nasita migrant wol ka batale min keda diaspora ti pour kakkoɗo kinela moole because moɓe yalne bañnasal ñatelgo moɓe katara bisirine so wi come up with this idea kaytane waw mbaɗ minga sadiol fana staden kay wafi min mbaɗnala ma diaspora seɗum ɗo no website ol to e eh, sadio sela moole a tara imam bata so mbe wole kan kabrilla si alhamdulillah sa en 3 years mon ko ya ku soto je mon fen soto ah. ya so ni min mo diaspora lafta ka dun ka kere ibe na website wol to ya download google play store ni dun taje kay mom ma so ne yata bakele ni ta dun taje rek mon fa faham fa mo be tar lajele kawo kan ite alon mo be tar lajele mi yango costo balo e kol be le sonande be dun na saji wol kono le nyaata ah, do bande pour ya explain mo le mol sa sanno nyaame ani ah. kol mi along ko lebe ni je bon laftale follow because am balu jamalia understand gambia banko kan jang bari laftale fana mil mantra use kan science and tending mune nafa koti pour ka balo yu ok minu fana mantra yuskan kan nafa min biji asembo warta bagale because application of damani a download google play store ibe 5 euro satolale ah, pour ka download ah, lo download dama ni download rek ya activer rek 5 euro better le jele la wo diata billahi yaji so 5 euro jingi ya understand na diata tele ya understand ni te ya download be 5 euro so le be 5 euro top up fana so tole for free ya understand so fo 5 euro jing mi ya isa sanno ele moy electricity ani fendol so ku jamal fana bi jeli mi yanko application ni ya download be dahan le tata school wo imanta school wo abe sonel la ke dahan because the moment it ya application ni download ite sulota kawo kanna mo be tar la jeli mi be makoy la pour easy access akamta ndu nenying nenying ni application o taya download download ah, akam tale ko application o nying isi isi domoro sanno jele bari isi sajio fana sanno jele anin fengo fe miya lon ko balwo ka wa aha isi domoro sanno jele isi crédit ko sanno jele isi internet crédit ko sanno je isi cimentol sanno je iska se cash power sanno je sajio fana bi je sewol sanno amanda wo fana la because nani ñu apo fana kono muni transfer system wo fana bi jele mi yalon ko isi ko dol nya moto kinwela mole ta ya ta Ah, ni satino ya sane sani jeeyi koɗo ñin kiibita e ɓatala bureau min to wala easy finance ti ani yona anu ni fota advantage min bije comme yalo ni koɗo kinela yekoɗo kiila mo onda sane tata ibe rannale pour kake bot fit baluwo dimomani dunde tata ni fotata tela yay e kay ko nga baluwo transfale soto mam ne tara mi tela ba ming attend kang fine abo ibo nal but after that they will give you the priority pour mo koy ha ibo advance wo fana mo akam tele go mo advantage wo oh, fana mo advantage try de ba ta kan trouve balu wala akam tele koy ka priority dilale ni na rafang ite tala rangoto yela do ta wat rangoto pour ka ñum fana ta so sajiyol ñim fana abijele comme nga fale ñame na sa sajiyol ñim fele pour ka okay. mina sajiyol to bat ñing abo musa soto no ñaade apo ñing ka download google play store le ko sa mantra we pour ni ta google play store ye ak cliquer be balu ba apo ñi soto le easy access ya download so ni ya download uh, eh, ikawale no ma pour ye activité ah, ni ya download ibe step sol le no kan hani man di moment ya download ya click i click interact customer care e jumi kita na customer care agent do wol bal na comme mo le ba try kam pour ka balu wala ka dum balu wala system o ñing kono so ite any tefite ma soto ɓe contact laddare ka tan leyde ma rondin min tuma fana pour que ma koye min mbatnala eɓe accès sotolano pour ka ɗum website o ñin kono so wala ka fo ko ite tata school o manta school o di mo men yal application ñin dawlo google play store abe sone yala bulle bi ko mo be tara jël mi yalon ko be mako la pour ba la no ñami so uh, lamin nga jël ko disi fanan al murtanan ne because nga last year na ta jenne kabri nga saji o je aketa kawa ku balti saji balmi alon ko albe wafi kan damin na sone ata bakele fanan mo jamal kan nyinin karo ke fo balu fo buka profit so do bari alka saji ol milnati mol kamil wafi wuli tandane wuli tan lulu atol ka wafi price o minna aha e, e bukani modo kompiano ñinan sa jël be ñaade ah comme ka fo ñi tol baluwo dal natale pour ka ka africanul makoy nata wol man na nan komin ke ka akolyandi mol ma ba mo fi ngol ma ko ka akolyandi ma ha nyinang sajol bi janne komin as you can see sajol bi janne bari manke dakil ngol di mo be yalon ne ko inflationol ba kerim banko kang ya onda sanne kuol dabe kol ne but with baluwo ni dindan na website o sajio sanno 150 euro sa e basatolale kata santo 150 dollar 150 swedish corona ha ni te dundale la fa rek ba sa la baluwo la system o kon dalta ka kenya mi mal la fa last year mba wafika minla 150 euro 150 dollar kata this year fana mbe wole nyama interesting uh, so saying uh, mosa fono le ko sadio da sone ata bakele gambe jen saying bar tuwa budun kol mi alon ko lebe taraka jibe bari tol be kodole kila saying ning for example moy sadio sang inara problem wo soro alni wo mari kake nyaade pour ka na lafta ka falin ate fi uh, a lafta falin nale fal ka wakel o manki problem sa jodi momen ya sang ite fawna ta jibe because wala tan nanka foye ning diaspora dun tan na system o kono e saji o sang ndol buka saji o tomboye ila beneficiary min kite ila moti min be gambia jang anin nyim banku dol tombe opret kala wolle bitala na place o to ka saji o wafi dami e saji o nying tombong ni e category min sa mba category nyin tandile me bi tang wala tan lulu e fango beneficiary nyim fango ya tombon fa ya satisfy aya cika anaita but hanna nata tata fana anata problème o detecta bala ko problème o ñim bijel na yen kol nka fa ila murundi na na ay do jibe ngadi yala because client um fenete mi yalon ko ñanta ka contane ndila ah so baluwo dana kan tolbe wol nyama kan na client ol na client ol la happiness o ila contano wala mum tol fana nyato tati abarka lamin ibe eh, eh, mun ibe sarla munela ibe mun fula mole milia lon ko lafta sadio sanna disia balu ok wala mbem fula mole comme ko be ngalo nyami a ah, sain sain ten sadio da mon trafe bon ni momo lafta sadio la teriya ke ya soda di ma kon ye content e dum balu wala apo ya download e junje e sadio sang ila mole da di ma fangola ni na sene basul la ni contano ni misatije e abarka bake abuwa so ala barka bake mbarigol ngal tendukal je bake nga ñine sura ali aliye moyle min fo of course am ali baye moye bari ali of course am uh, lamin jayte fana moyle uh, mi alon ko jamal ka kumandi lamine balu wala min fo sadio la ko sadio fele balu la sadio e futata le ne gambia banko kan jang andu e dabe so ne ye price o min soto ale alta soto la dulato ye sadi saji ngol le naati na lafta size o size la abe abe balu o bulle woto ñide be budu du 55 ibe min kela don a soniyata ta yeñing baluwo abo download niya download rong isi saji yo watra watara me scam iba sannale watara e manko do kinan ibe mole kila dong ayana ay saji yo ta watara e mambata dari jamal bijele mi alon ko be tuwabudu ka problème o soro ikela kodol kinan jam molele la kodol ta watara ibe ka problem jama jama balle soro je bari baluwo yo be bondele saji sajol bijanne mi alon ko da ne atale na through this um abol 150 euro drong um ibe ibe fansung um sadio sotola ibe minkela um leyangoti um nyenen sangola nga nyene soto bari momo nata um uh, abuko jang ko afo ñamen dong albatale tarra jang alsa suute uh, eh, molu kono uh, eh, ko afo ñamen dong natare botanan uh, eh, lamen ma fongo e kadung abuko uh, bunda folo nyin dong ibe dunna wala bunda bunda folo nyin ila left side ibe dunna wala natare botan lamen ma fongo bunda folo ila left side ibe dunna wala ni dunta dong mol nyin ka uh, jumalem bayti e ba tandile lale bari ni botanan tabokoto ma fongo la uh, force bunda second bunda nyin e ah, buluba karola uh, ibe dunna wala ni dunta dong ni mol nyin ka bayla ah, iba tandirele annon atelem ñindi naatol fon yaji ñin caméra to eh, alba suutelale atelem moti mi alon ko aɓe balola am sadiol waafi kan jang eh, anndun awa waafi kan dala mi alon ko a soneyata eh, baake la woto ngal tentukal je baake momo mi alon ko eɓe kerfatu jibe kannun ñin tembenna ngam molu be tentuke je molɓe e bori nan gana ga ñin sadiol ta ka sa ganna caméraman o tentu ka je baake foni murtanale ne kote ke ala barka bari biwo ken contane batale bari inatal pour kanna bunlo ko jiɓe ito le makura mhm. bari ala yalonte man contande makura kana ñina koye teninte belɓe dudula du dula kiliŋo to ŋokkodi ɓa katoŋo kinan jang pour yena na dula dada ni tata na dula to makura ala ya lon njusomal la ama hani futa dula to dula ndin ndin ndin anum birite loro commencé woni mbitema ama hani me non non ama me to ñalom ke mhm. bara foñe mune muy la kulloti ndela kullu balu waldi balu ha way fana kɛlɛ i ka loorow fana kɛlɛ e. ɲin kun ne soniyata ta www baluwo com anin baluwo i se la bulloran joraŋol bee saŋ a niila kudo la a saatara i maŋ bataa joraŋol meŋ buko simentol keño babarol neel peruwol woniŋa ñoŋ jamal ta baluwo com yeñiŋ joraŋol bee saŋ i la dinkira baato a duŋ ite bataa la je aniŋ baluwo i faŋo le marata marate la kudo la